sarax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey ci xët wu njëkk ba fekk fa Gris Bordeaux troisième tigre bu Fass à six mois de la fin de la saison le journal ba xam ne mooy Gris Bordeaux boo moytu dana dem ci septième saison blanche am moom troisième tigre bu Fass juróom-ñaareelu saison blanche moo koy waaj juróom benn weer a des ci saison bi ba léegi déggaguñu benn combat bu taxaw pour Gris Bordeaux loolee moo waral journal bi dellu siwaat ci ni mu gën a yaatoo ci carrière u Gris Bordeaux la mooy juróom-ñaari saison blanche yi nga xam ne Gris Bordeaux am na ko ci làmb 23 ans de carrière la def moom Gris Bordeaux ñaar fukki at ak ñett la def ci carrière ñaar fukki combat ñaar la ci bëre fukki ndam ak benn la ci am juróom-ñeenti defet ñaari sans verdict ca 97 Bordeaux dafa année blanche 2009 2010 Gris Bordeaux bëreewul 2013 2014 Bordeaux tooyeelul xaftaanam 2015 2016 déggul avancé ngi 2016 2017 amul combat 2018 2019 bu mujj bii mosul géew journal ba xam le ne loolee boo ko xaymaa juróom benn yoon bu mu def saison blanche bu dee ci wàllu victoire mu ngi gëj a moom mu daanee Tyson ba léegi nii daanaatul beneen mbër bu nu jàllee ca CNG dañ fay fekk Thierno Ka may wax ci interdiction face à ya question ba mu posé mooy pourquoi les gens s'inquiètent et s'affolent lu waral gars di jommeek a jaaxle fa mu njëkke mooy dañu koo laaj ci drapeau chef de l'état mu ne njortu naa ne le 5 juin 2020 koy jàpp bu dee ci tournoi CEDEAO la mu xam ne mooy proposé nañ benn période CEDEAO waaye dañuy xaar retour ba ñu waxee nga promoteurs yi ñoom saa yu leen neexee la ñuy organiser face à face nu mu leen soobeeg nu ñu ko sentiré lañ koy defe ñoo waral ñu génne benn circulaire de rappel di leen fàttali li règlement bi wax te règlement bi li mu wax lu leer naññi la mënuñoo def communication combat boo xam ne ni officiel la gut te balaa combat officiel il faut ñu régulariser ko rax ca dolli moom Thierno Kane CNG daa yombal mbir ma promoteur ya ndax la mu leen wax mooy bu saison bi tijjee seeni combat CNG waaye duñu ko def seeni combat di def seeni face à face kenn te ñun CNG liñ ciy bañ mooy risque de débordement ya moom foofee la daane leen mbir waru cee jommi kenn waru cee jaax jaaxle bu ñu jàllee ca écurie plateau ñoom fa ñu doon entraîné dàq nañ leen génn nañ leen ca biti école Moustapha Diop ba écurie plateau doon entraîné génn nañ leen ca biti président écurie boobee di Moustapha Wan moom ka muy pointe di doigt mooy sous préfet ba rax ca dolli ne directeur école bi nangu na ngir ñu fiy entraîné depuis ñu nga fay entraîné coow amu fa dara amu fa waaye dàq gi ñu dàq ci biti kenn defu ko ku dul sous préfet ba moo tax bind nañ ay demande dee ne footballeur yaa nga fa basketteur yaa nga fa mënun ñoo dàq ba pare bàyyi fa footballeur yaak basketteur ya loolee du dëgg du yoon yéen wut maana lay dëgg ci combat Alioune Seye 2 ñàkk jëriñu Max Mbergane ñëw na ca moom la mu xam le mooy bu dee technique rek Alioune Seye 2 moom lañ ko gën a yaakaare moom mbëru géejawaay bi moo ëpp ay bagage technique waaye ñàkk jëriñu dafa gën a courageux dafa am jom am fulla am fayda ci combat moom du maye dara waaye loo ko may mu jël li ma xam ba xam ko man Max Mbergane mooy combat bi du am match niil Alioune Seye 2 ne ca tonn ne ko niil kay waxee su ko man ñàkk jëriñu bu ma doon nelaw mënumaayee tolof tolofu làmb ñu boole waaye du ma maasam du ma moroomam ñàkk adversaire moo tax tax leneen lay leer le 13 avril mooy diggante caatu booy bambara ak Modou Dia presse bi taxawal bi le combat avril dafa dajale combat yi yëpp di tëgg benn face à face le avril ca Dakar Arena mbooleem combat yi mu taxawal le 4 avril la def seen face to face ca Dakar Arena caat ak Modou Dia danañ waxante le 4 avril ngeer ak libidoor waxi noppi bu nu jàllee ca lit sans frappe marlooj moo woote ni ki tey ba le 9 février nekkee ci ba le 10 ca daaru nimsat foofu it 3 millions lan fa teg le 7 ba le 9 Ambroise Sarr woote ca Palmarin lii mooy galaa yi am ci réew mi ci lit sans frappe ci week bi jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah